الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد mbokk jullit yi ñi ngi sant suñu boroom ñi ngi seede ne moom dong yeyoo ñu koy jaamu di seede ne yonent yàlla muhammad jaamam la woon bu mu yónni ci ñun ñu ngi seede yi tamit ne ah diini lislaam ji mooy diine bi gën a mat bu yàlla mas a wàcc ci kaw suuf bàyyiwu ci dara looloo tax mu may ñu ci la nga xamee ne nii mooy ay feet yoo xam ne doomu aadama yi daan ci mën a féexal seeni xol man cee daje waaye la gën a màgg ci jubluwaay ya mooy mën a taxaw ci seen kanamu boroom njëree mu yokk seeni xéewal far seeni bakkaar tabbal leen ci yërmandeem moo tax ñaari feet yépp boo ko seetee day nekk ci gannaaw jaamu yàlla yu màgg feetuk tabaski ma ngay nekk ba at ga jeexee feetuk korite ma ngay nekk ba koor ga jeexee kon bu ñu dajee ci place it na nga xam ni la gën a màgg lañ fay fàtte lente mbokk mooy suñu ponk diine ji ay waay mbokk xam leen ni la gën a màgg ci diine mooy ñu wéetal yàlla jalla wa ala wéetal ko xam ne moom dong ngay yàlla wéetal ko xam ne moom dong lañu war a jaamu yàlla moomu ngalla waay bu ñu woo keneen ku dul moom bu ñu ñaan keneen ku dul moom bu ñu yaakaar keneen ku dul moom bu ñu ragal keneen ku dul moom bu ñu dimbindikoo ci keneen ku dul moom lépp luy jaamu yàlla moom dong moo ko yeyoo loolu mbokk jullit mooy fondement bañ teg diini su baaxee la ca gannaaw lépp baax na su baaxul da ngay gis ni dara baaxatul julli baaxatul koor baaxatul aj baaxatul maadaama tawxiid yàqu na képp koo xamee ne nii sàggane ne la loolu la nga xam ne mooy payam mooy tabbi sawara xaalidina fiha abadan yal na yàlla musal ñu ci loolu koo xam ne nii dëggal na ko kooku lu mënoon a defal borom bi du tey yàlla dana ko baal tabbal ko aljanna loolu nag yaa ngi koy fàttali sa bopp foo mën a toll di wax yàlla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ay yàlla ñun dey jaamu wuñu ku dul yow ay yàlla ñun day duñu dimini kooku dul yow ngalawaay loolu mbokk ni nga koy répété ci xol bi ci làmmiñ bi fexeel mu dugg ci xol bi fexeel it jëf yi dund loolu te mooy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kii di Muaz ibnu Jabal radiyallahu anhu nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na li nga xam ne jaam yi am nañ ko aq bu bu yàlla yoral leen mooy képp koo xam ne bi ngay dee bokkaale wu ak yàlla dara yàlla subhanahu wa taala du lu mbugal ca ku yàlla mbugalul dana la teral teraangaam ja mooy àjjana ju kawe ja ay yéen ba ko julit la nga xam ne mooy ñaareelu màndarga bu ñu war a fàttali ci jataayu it mooy seede bi ñuy seede ashhadu anna muhammadan rasulullah bi ngeen di taaye léegi seede ngeen ko ba ngeen di jàpp seede ngeen ko yéen ngi koy seede gannaaw lu bari ci ay place te loolu mooy lan moo ñu seede ne yonent yàlla muhammad moom dong mooy yonent bi am droit jottali ne yàlla jalla wa ala ne nii laa bëgg jaami jaamoo ma ko su ko defee yow jullit bi gëm loolu dootoo jaamooti yàlla lu dul la yonent bi dégle waaye nag doo ko may yonent boobu lañ ko war a bëgg bëggeel bu ñu bëggul keneen ku dul beneen jaamu yàlla dañ ko war a topp dañ ko war a dëggal sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dimbali sunnaam ci tasaare ko suñu borom yàlla mu ne topp leen ma ca topp sab yonent su ngeen wonee gannaaw nag yonent bi li ko war mooy mu jottali yéen it la leen war mooy ngeen topp su ko defee su ngeen ko toppee de da ngeen jub ay yow julit xamal ne mboolem sa aju sa wàllu dund ñaa liggéey ba la commerce ba la nga xam ne mooy sëy ba la la nga xam ne mooy njaboot ga la amul ci lenn loo xam ne boo delloo ci sunna dudul ne dana la won yoon boo xam ne boo ca jaaree da nga jub wa in tutiuhu tahtadu su ngeen ko toppee da ngeen jub ay yéen ba ko julit xam leen ne day it gii bokk na it gannaaw loolu lu ñuy war a fàtte leen te la nga xam ne mooy suñu ponk diine ji ay waay xam leen ne ponk bi gën a màgg bi ñu defal yàlla ci kaw suuf mooy la nga xamee ni ne mooy julli képp koo xam ne taxawal na ko ah matal laab ga matal waxtu wa matal rukkoo yaak sujud ya matal toroxlu ga ku mel nii day mboolim diineem baax na yàlla moo koy garantir fegal ko ñawteef yi yewenal ko diineem suñu dajee yowmal qiyaama suñu borom yàlla la muy jëkk a laaj malaaka yi xoolal leen ma sama julli jaam yi képp koo xam ne say julli mat na rafet na mu ne tëj leen dossier bi kon li ci des lépp baax na koo xam ne say julli ñaaw na manqué na su boobaa mbokk jullit daañ xool la ca des lépp ca bu boobaa fokk nga dajeeg mbëgalum borom bi kon ñi ngi leen koy ñaax ngeen ñaax ci ca ñaax ci la nga xam ne mooy njaboot gi weeru koor gi ñu génn nañ ko sàmm kaka matal matal na ko ka ca manqué le nga la waay na fay bor yam ca waral gannaaw loolu mbokk julit ko am ci yenn alal na xalaat génne ko zakat ñàkk génne zakat moo gën a bon weeru koor jot wóoroo zakat moo gën a màgg koor yàlla lënk ne lënkale na ko ak julli lu ëpp juróom-ñetti fukki place ci téeréem bi ay waay ñu ngi leen di dénk ngeen waajal ak makka góor ak jigéen la nga xam ne mu ma ngeen di dugg di dajale alal projet yee na ca bokk aji seen néegu boroom mooy juróomeelu ponku lislaam gannaaw loolu ngan la waaye xam leen ni gannaaw aqu yàlla bokk na aq bi gën a màgg mooy aqi way jur ngan la waay yéen ñi dese ay way jur taxaw leen ci way jur yooyu sàkku leen ngërëmal yàlla ci ñoom ci di wax ak ñoom wax ju tedd di jël seen alal di leen jox di leen jege topp seeni ndigal lu dul loo xam ne ak mooy yàlla la koo xam ne say waajur faatu nañu ngalawaay bu leen fàtte day leen ñaanal day leen génneel ay sarax foo mën a toll te xam ne loolee ca la gën a màgg ci luy jur sa ngërëmal borom la gannaaw ba nañ sàmm mbokk gi rawatina yéen la jeunesse tey jii xamatuñu lu ñu mbokk xarit rek lañu xam waaye mbokk xarit lu baax la dana la jàppale ci àdduna jàppale la ci diine bu dee ko baax la waaye nag xam leen ni mbokk moom même bu doon ab yéeféra islam dana la jokk ko rafetalal jëm ci moom ay yéen mbokk jurit na ngeen bàyyi xel ñi néew doole ci yéen muy miskin yi ak la nga xamee ne muy jirim yi yërmande yàlla du ko jaarale lu dul ci ñoom bépp société boo xam ni ñi néew doole ca ñoom ña ngi leen di yërëm yàlla dana wàcc yërmande ci ñoom bépp société boo xam ne dañoo sàggane ñu néew doole ci ñoom suñu borom yàlla dana wàcc mbëggolam ci ñoom ngal la waay góorgóorlu leen yéen mbokku jullit yi ngeen xool sàmmante seen bopp sàmmante leen la nga xamee ne nii moom mooy seeni àq yéen ñi nga xam ne yàlla dogal na ngeen dëkk yonent bi alei salatu wasalaam nee na wallahi gëmul wallahi gëmul kookat la yow mi yàlla yónni mu ne koo xam ne ay dëkkandoom mucc ñu ci ayam ngalawaay moytu leen loolu bu baax sax leen di digle lu baax sax leen di tere lu bon loolee sa njaboot la wala képp ku la déggal góor-góorlu leen moytu ak noonoo bokk na luy juru musiba àdduna ak musiba àllaaxira la nga xam ne mooy ak noonoo ngalawaay yéen jeunesse képp koo xam ne mi ngi leen di woo na leen woo jëme leen ci seen borom na leen woo ci projet yu ngeen di liggéeyee soqali seen réew waaye képp ku leen woo ci xeex képp ku leen woo ci toj ku leen woo ci reyante comme li fi amoon ñeenti weer ci gannaaw ngalawaay bu leen ko déggal bu leen ko topp bokk na musiba bu gën a garaaw doomu aadama nga jàkkaarloog sa mbokku jullit dóor mu dee wallahi suñu borom nee na ki rey benn bakkan moo ki rey àdduna yépp a yem loolee ngeen bàyyi ko xel bu baax politique jaru ko syndicat jaru ko sport jaru ko suñu borom yàlla subhanahu wa taala tere ne loolu tere na njaaloo gu bon gi tere na njaaloo moytu leen njaaloo bu ma waxee njaaloo la gën a bon njaaloo mooy ak góor jigéen goo xam ne complot international imposé ko àdduna bi lañuy lañuy lañuy la ñuy saxal loolee ngeen bàyyi ci xel bu baax bañ leen góor jigéen ngelaway am na loo xam ne ku ko xutba woon cinquante ans ci gannaaw ñu ni kii daa dof te mooy li ñuy tudde lesbienne ay xale yu jigéen di jonjoog seen moromu xale yu jigéen jamono bi ñuy dund village planétaire xale yi dañu seen tànk nekk Sénégal waaye xol yi ak bët ya ma nga Europe ma nga Occident jàpp nañ ne Occident ñu sobe woowu lépp lu ñuy def rek ab avancement loolu baax la ngalawaay ndawal jullit bul dugg ci loolu dafa xaraam jigéen ngay dem di jonjoog sa moromu jigéen di ci wut bànneex dafa xaraam góor ngay jonjoog sa moromu góor di ci wut bànneex moytu leen mbokk jullit lépp loo xam ne alal ju xaram la carte gu bon gi moytu leen ko rawatina yéen waa jeunesse la nga xam ne mooy loto sport yi ngeen ubbil équipe bi mooy gagné équipe bi mooy perte lu ngeen am dugal ko ci moytu leen la nga xamee ne nii mooy riba moytu leen sàcc moytu leen lekk alali jaambur ci dul neen et yéen jeunesse bi surtout moytu leen la nga xamee ne nii mooy lépp luy wàllu drogue cigarette bu bon bi moytu leen ko góor-góorlu leen jàppalente ci digle lu baax tere lu bon képp ci yéen na xalaat naka laay def ba jëriñ sama réew bañ a nekk di xalaat naka laay def ba jëriñoo sama réew xamal ni ki gën ci jaami yàlla yi mooy ki ëpp njëriñ ci jaami yàlla yi ay yéen ba ko julit góor góorlu leen julit julitay mbokkam julit du xeeb julit julit du tooñ julit bokk na boo bëggee ngërëmal yàlla fexeel ba bégal ab julit amul lenn lu gën a neex yàlla julit bégal moroomu julitam loolee ngeen bàyyi ci xel bu baax gannaaw loolu yéen père de famille nga la waay bu la yàlla wërsëgale may la soxna xañ ko ñu bëri may la njaboot xañ ko lu bëri xamal na loolu responsabilité sa kanamu borom la kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dañ la taxawal yowm alqiyaama taxawal njaboot gi laaj la lan nga taxawe woon ci ñoom ci déglu yàlla ak tere yàlla nga la waay def seen bànneex bu ko jënde merum borom bi jalla wa ala fexeel yàlla gërëm la ci ñoom suñ la gërëmee ñoo xam buñ la gërëmul ñoo xam te wallahi bu la yàlla gërëmee na doon yaa ngi dund wala yaa ngi dee adduna du jeex mukk lu dul ñu gërëm la comme ne la yàlla gërëmee loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax yéen jigéen ñi xam leen ne la nga xamee ne mooy muccug famille bi ci seen loxo la nekk bàyyi mën nañoo xëy di dem yéen a gën a jege njaboot gi teel leen a suuxat ci ñoom gëm yàlla ragal yàlla wéetal yàlla moytu leen seen njaboot dem ci ay woote yi nga xam ne ay tëggkat ay bandkat ñoo fay daje di woo nit ñi di leen jëme ci keneen ku dul yàlla di leen yaakaarloo keneen ku dul yàlla di leen santaloo keneen ku dul yàlla soo defee càggante ba sa njaboot raw la ba bokk ci ñooñu perte nga ko addunaam yàqu na allaaxiram yàqu na loolee ngeen bàyyi ci xel bu baax déggal leen seeni jëkkër jaamu leen yàlla ci jëkkër yi mën na am yéene leen ëpp lépp waaye nag yàlla dogal ngeen war a jaamu yàlla ci ñoom comme ni jëkkër yi war a jaamoo yàlla ci soxna yi ci bëgg leen ci yërëm leen yonent bi alayhi salaam nee na xayrukum xayrukum li ahli wa ana xayrukum li ahli ki gën ci yéen mooy ki gën ci njabootam man nag maa gën ci sama njaboot loolu li muy firi gën sa njaboot firiwul ay ganaar la ñuy añe moom la ñuy reere gën sa njaboot firiwul garde-robe boo xam ne dara manqué wu ca waaye gën ci sa njaboot mooy lan fexe ba teete leen ba ñu am ngërëmal yàlla fexe ba ànd ak ñoom tàbbi ci àjjana yu kawe ya loolu mooy la nga xam ne mbokk mooy gën ci sa njaboot ay yéen mbokk julit nañu àndaat góor ak jigéen ñun ñëpp tuubaat suñuy bakkaar allah subhanahu wa taala huwa alghafuru rahim fii nga toog nii wallahi yaa ngi am juróom-ñaar fukki at loo mënoon a def ci bakkaar soo toroxloo fii jéggalu ko yàlla dogg na dootoo ci delluwaat yàlla bal la ko rey nit ya njaaloo ya lekk riba yi payimi ya la lépp loo dogu ne bis ne ki tey wan nga ko gannaaw ba baa ngay dajeek sa borom mu dëgg sa xol yàlla subhanahu wa taala baal la gannaaw ba la ñuy jeexale nga la waaye mbokk ñu ngi ci adduna adduna bii ñu ngi ci dund ñu ngi ci dugg dund gaal bu ñuy wax temps temps boobee mi ngi ñu jëme ci suñu borom adduna day jeex fan jëm du du jeex ba faw nañu fexe ba xam ne ñaari woote ñu ngi woote wallahu yad'u ila daari salaam yàllaa ngi woote kërug àddina kërug teraanga seytaane innama yad'u xisbahu li yakunu min ashaabi sair seytaane ngi woote ngir waa sawara ngalla waay bokk leen ci ñi wuy ji yàlla ci wéetal yàlla ci def lu baax ci bàyyi lu bon ci muñ wallahi yàggul muñ léegi àdduna jeex léegi àdduna jeex ñu daje ak suñu borom su ko defee loolee mbokk mooy la gën a màgg ci mbir yi suñu borom yàlla mu ne fala taxurannakum alxayaatu dunia fexe leen bu leen àdduna wor wala yaxurannakum billahi alxaruur fexe leen ba seytaana du leen wor mbokk di ab tënk la boo xam ne ñi ngi leen koy tënkal di ñaan yàlla yal na yàlla def ni ko nopp yi dégge yal na yàlla bàyyi ko ci xol yi yal na yàlla feeñal ko ci jëf yi allahuma rabbana laka alhamd yàlla day cant yépp ñeel na la yaa bind asamaan yeeg suuf cant yépp ñeel na la jalla wa ala yaa ñu bind yaa ñu gën a xam cant yépp ñeel na la jalla wa ala yàlla day tey jii bàyyi nañu suñuy kër ñëw daje ci sa néeg bi gannaaw loolu day sax ñi ngi bokk na it lu ñuy fàttali lan moo tax ñu daje wallahi mbokk it bokk na ci la gën a màgg jurit ñi doon bend jurit ñi doon jàppalante kon tey ñi ngi it waaye ànd ak tuuti xol bu xam ne xol bu naqari ndax xam nañ ne li ëpp ci réew mi iiduñu waaye lan moo tax ñu it ngallaawaay mbokk julit dañoo am ay xabaar yoo xam ne jóge na ci ay réew yu ñu wër ay réew yu bari yoo xam ne juróom-ñeenti gox yoo xam ne tudd nañ ko yoo xam ne nee nañu weer wi feeñ na fa gannaaw loolu oustaz Mansour Samb mooy imaamu ratib juma dameel moo jokkoo ak man ne ma day am na ñu ma xam ca fële nga xam ne nii ah mooy kap sikir kap sikir la ma waxati tonke sil jazakumullah am na ñu mu xam ca tonke sil ñoo xam ne nii dañu ne ñoom day gis nañu weer yu foofu gannaaw loolu am na ku ñuy wax Thierno Ahmad Kane mi ngi dëkk ci en arrondissement Kanel ca nga xamee ni dëkk bu ñuy wax Sinthiou Bambey moom ci boppam moogu waa këram nee nañ ñoom gis nañu weer yu foofu ci département Matam bi loolu xabaar yooyu ba mu ñëwee di loo xam ne dafa ñëw suñu biir réew loolu moo tax mbokk ñu woote julli it gi ngallaawaay nañu xam ne dafa am lu ñu dab. muy commission nationale dafa ñoo dab commission boo xam ne nii mooy tëral buñ gisee weer wi ñu ne gisuñu ko ay ca suba buñ ko gisul ñu ne gisuñu ko mbokk loolu dañoo dab suñu maam yi de lañ daan dund mooy dañ daan toog di déglu xabaar dañ daan wóor ba digg ba cëg fas doog a ñëw wala leneen doog a ñëw ñu ne weer yi feeñ ne dëkk sàngam su ko defee ñu daal di woor wala ñu daal di dog loolu nag moo tax ba mbokk julit ngalla waaye gannaaw ba ñu ñaanalee yàlla nangul ñëpp xam leen ni képp ku leen laaj ne wóoruñu wari wuñu ngiree dañ ne feeñ na Niger feeñ na Bamako feeñ na Côte d'Ivoire déedéet la tax ñu gën a woote julli woote wari mooy dañ ne feeñ na ci suñu biir réew léegi nag yow jullit ñaar moo mën a am mooy ña nga xam ne ay imaam lañu ñoo taxaw ñu ne weer yi feeñ na yow am nga lay sa kanamu boroom waril soo demee yàlla du la topp dara am nga lay bu ñuy fen fenwee seen seen problème la lii daal mbokk moo tax ñu woote di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla nañu yàlla nangul juuyoo gi am ci julli gi yàlla bu ko yàlla yëggale ci xol yi yàlla na yàlla def ku nekk comprendre sa moroom yàlla nañu yàlla dajale ci ay yërmandeem yàlla nañu yàlla laabal laabal suñu njaboot yàlla na yàlla laabal suñuy pas-pas yàlla na yàlla laabal suñu jaamu yàlla yàlla bu ci yàlla rax lenn luy biddaa ak xuraafaat yàlla nañu yàlla boole ci ñi ànd ak yonent bi àdduna ànd ak yonent bi àllaaxira yàlla na yàlla yërëmal ñu mboolem suñu way dawli yi yàlla na yàlla dajaluñu ak ñoom ci àjjana yi nga xam ne moo gën a kawe yàlla na yàlla rafetal suñu mucc mboolem ñi nga xamee ñi ni weeru koor bi génn nañu seen alal na doon ci jàkka ji lañ ko indi ca iftaar yañ doon joxe wala leneen yañ doon dimbalante waa jàkka yépp yàlla moo leen gën a xam yal na yàlla nangu leen barkeeleen leen lañ dese yal na yàlla nangul ñu mboolem liñ fi julli mboolem liñ fi woor mboolem alquran joo xam ne jàng nañ ko fi yal na yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ko yal nañu yàlla wërsëgalaat ñu dajewaat déwén ci koor goo xam ne mooy gën a dëppoo mooy gën a barkeel la nga xam ne nii won nañ ko suñu gannaaw allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana wa qina azaba annar subhanaka allahuma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu